asalaamaaleykum mbokk internet yi di nuyu ku nekk sa tur sa sant comme ni ko daal di defee rek saa su di nuyu sama sama jaam yi plus particulièrement ñooñu nga xamante ne ñooy séeréer yi ah, <laughs> séeréer yu ñaaw yooyu <laughs> may leen di nuyu di bu baax a baax euh, di nuyu képp kuy sénégalais di nuyu le monde entier cat ba cat ah ndax suma limee rek damay jum mu ngi noonu ma nuyu sama américain bi Babacar <laughs> borom lunette yu baax yi mais Babacar dama laa mere. lu tax di nga dindee lunette yi laa mer. non bul mer yow tamit. mais Babacar de. non bu ma paree naa la ko takkala suba ba tey maa ngi lay ne Babacar lunette yi dafa rafet. merci beaucoup su ma paree naa la ko takkala. jib seen a fi jaar balaa maa kontaan nga takk ay lunettes. non su ma paree dama la koy takkalaat incha allah loolu du problème. maa ngi lay fay Babacar toog nga ma mënoon ngaa plateau ak lunettes yi. non amul muskila dinaa la ko mayaat. <laughs> loolu du problème. waaw baax na mi ngi noonu ma bàyyi la nga nuyoo ak euh, suñu mbokk internet yi. waaaa maa ngi leen di ziare ñoom ñu ñuy suivre di ñu topp à travers Equivox TV fu ñu mën a si àddina bi rek di leen ñaanal jàmm te ko saako si ñoom ah, fu ñu mën a nag parce que encore une fois comme li may wax rek mhm. amuñu seen fay yàlla na leen yàlla fay mhm. yow tamit di la ziar di la nuyu bu baax a baax di la wax ne macha allah yow tamit ah mhm. te yaa nga may rek sa rose waaw macha allah te di ko xeeb. Hmm? Rose Ficha xam nga bëgg suñu alternative bu ñuy xool di kontaan. ah non gars yi bëgg nañu. seen xool di feex ñu ngi feex ñoom Mansour. ñu toog si ginnaaw di xam nga. ay ñoom Adama Ndiaye gars yi. ay ñoom Adama Ndiaye ay ñoom Mouhamed ay ñoom. keneen ak keneen soppe yi soppe yi waaw fan si club Babacar waaw mooy ñoom Adama Ndiaye ñoom Awa waaw un jour dama doon euh, bay jil tarkinda waaw waaw dama doon ñibbi ma dajeeg euh, sama benn client ba may jaay mhm. mu ne ma kon yow Equivox ngay liggéey mu ne ma oui mu ne man damay suivre Equivox Babacar a gën a tax ma koy seetaan ndeysaan ma ne ko ndeysaan mi ngi noonu ñoom dañoo baax yàlla leen mhm. yàlla fay amiin yal na leen yàlla fay soppe yooyu. amiin mm-hmm. mi ngi noonu Babacar euh, sans plus tarder dañu daal di dem rek seetaan loolu nga xamante ne mooy euh, yëglekaay yi dikkaat ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mardi 30 novembre 2021 dañu ñëw ci yëglikaay yi sunu lamb la ne xëy doo rek ko yëglikaay bi tey xëtam mu njëkk la ca xëy gën caa fes moo di Forza mi nga xam ne ndam lu rëy la am bërki démb ci digganteem ak ka nga xam ne moo di pakala ginnaaw nag ba loola passé moom moom Forza la mu xëy wax daal ne na li am ba des ne na kii nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 mu géej way mu écrit waalo daal Lac de daal la forsa xëy tal sampal ko ndënd nee na ko daal man daal yow laa bëgg a bëree tey bëgg a bëree sax Forza mu ngi koy leeral nee na du man samay supporter ñoo bëgg boobu combat te itam nag nee na nekkul adversaire boo xam ne ku ko teree nelaw la waaye daal nee na bu ñëwee ñu làng maak moom seq ko bëree ba mu saf loolu moo di ay waxu Forza tey kenn koo xam ne ka Forza dëkk moom moom ñoo bokk benn écrit te bés ba Forza bëre ca la bëre daan muy Alioune Seye numéro 2 bu waalo Alioune Seye 2 tamit xëy na tey daal di wax ca la nga xam ne nii daal moom moo di wàllum làmbam ak na mu teree nelaw moo la li mu bëgg moo di tiitaru roi des daal ne na moom la bëgg a am yóbbul ko ay supporter am daal delloo leen ci njukkal moom Alioune Seye numéro 2 nee na tamit ci wàllum bëre na ca nit ña jàpp ne noonu la ko ma ne na wàllum xeex tamit noonu laa ko maîtriser man Alioune Seye numéro 2 xëy na taal tey di wax cay ci yëglikaay bi leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne doomi géeja way la di Balla Gaye numéro 2 bokk ñoom Alioune Seye def Lac de Guiers 2 benn gox wala benn quartier muy Balla Balla daal yëglikaay bi ne na ginnaaw ñaari weer ñaari weer yoo xam ne def na ko Paris ca INSEPS di préparer diggante ak Bombardier yëglikaay ba nag mu ngi nu xëy teel xamal ñu ne Balla Gaye numéro ko ku yebo xaar ko alterné bi ñu jëm daal la fas yéene nag dugg si Sénégal rawatina fi nga xam ne moo di Ndakaaru Njaay loolu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki doon fa nga xam ne nag fa la ñuy bëree te des fois ngay gis ay supporteru mbër daal ñuy damm séesee di sànni ka nga xam ne nag moom mooy jiili wàdd daal nekk fa nga xam ne moo di ca géejawaay jiili tamit yaakaar na école rit Mor Fadam wala boog mu bokk ci kilifaay école rit Mor Fadam moom Jili Wade daal xëy na tey daal di joxe ay solution yoo xam ne buñ ko defee mbir ma dana faju moom Jili daal loolu la xëy tey di ko wax keneen koo xam ne ni moom ginnaaw ba fi tojee Iba Mar Diop ñu ne déet na waay mu taxawal ay combat bokk na ci Gora Sock ak fils fils de Balla ñu ne déet na waay mu teg ca taqe ak Pape Ndoye ma mu tëggoon muy jamaykee jam mooma nag ba tey fasagul yéene arrêté rawate ne nag diggante Fass Ndakaaru ak Lamsar daal derby moom daa mel ni moom la bëgg muy continuer di gën a tàng di gën a jax moo tax moom jam daal la mu bëggati leneen la mooy rakki wala boog magi Pape Ndoye di lagros daal la bëgg a jël boole ko ak ka nga xam ne moo di Quench combat boo daal jamaykee mu nga ca sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax mu nga ca woon ba gagné mooy Doudou Sané ca wàllum li simple ba premier drapeau boo xam ne daal jël na ko ren ci saison bi yëgle kaay na ne bërki dem la ko gagné fa nga xam ne moo doon ca stade Iba Mar Diop 5 millions ya fa jag si la def kenn koo xam ne moom balaa dimanche ja samedi ja ca Passy moo foone boppam muy ka nga xam ne nii moom moo di rajaxe moom daal lañ fa tegoon tamit ca Passy moo ko jël yóbbu kenn koo xam ne nii moom la mu xëy tey di ko wax ñu dalal ko ci rubrique ba ñuy wax Leewtoo muy Mbaye Babacar Diop di ab reporter nekk fa nga xam ne moo di ca Leewtoo moom Mbaye Babacar daal la mu xam ne daal mbër ba mu préféré nee na du kenn ku dul Tanor bu Diourbel loolu mooy ay waxam tey ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb bu ma fa jógee record laa jëm record nag moom meneen mbir moo xam ne ni moom fi mu nekk nii ah yëngu na wala boog coow la bari na te muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo seen combat ku ne xam ne na la 25 décembre la ñu jàppoon ne ca la ñuy bëre ñu dem ba ci benn moment ñu ne combat ba léegi nag pousse nañ ko ba mois de mars 2022 waaye nag daa mel ni waa kër Ama moom loola fa suñu ko yéene dégg maanaam jàppal Abdou Bakhoum ma nga xam ne daal moom moo yore Ama Baldé maanaam la mu xëy xam ne daal nee na li am ba des daal nee bii daal la ñuy préparé fas ci yéene bëree mu mel ni kon foofu mbir mu nga fa coowal nga fa keneen koo xam ne nii moom maanaam wane na boppam relancer waat carrière am ci manière bu rafet rafet mooy santaa ñi ndax nag ci dimanche bu ndaw Gaston Mbengue tëggoon record moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey les arènes mi ngeen xam muy presse en boo xam ne mu ngay bind ay bind yu ama am solo moom tamit moom ngi na xëy daal dina xamal ne ke daal waa kër Ama Baldé boo bëggee dégg dëgg daal la ñu jàpp mooy bëriwaat moom buñ ko naree def wala boobu bëri lu dul le vingt cinq décembre moom des na leen joxaat lu toll ci ñaar fukki million daal moom lig Nicolay dina ko génnewaat teg ko ci taabal ji bu dul loola moom bu mu xalaat sax ñuy bëre benn date bu dul le vingt cinq décembre waaye li am ba daal mooy comme ñoo bokk làmb ji nanu waxtaan trouver terrain d'entente wala ba trouver solution ndax nag ñu bokkum teen ñooy laxasoo ay goj waaye ñi nga xam ne ni moom ñoo bokkum teen te bu ñu laxasoo ay goj làqal ci goj ya di seet bu leen ci gënal ak bu leen ca neex mooy tubaab yi ndax nag ku ne xam na ne wàllum ballon d'or ba ñu ngi ko doon joxe Messi lañ ko jox ñun loolu amuñu ca luñ cay wax waaye trophée ba nga xam ne nag moom la ñuy wax trophée Yacine ba daal lañ ca def lu leen neex ndax nag ku ko dégg taxaw football di ko topp di nga xam ne la ñu def lu leen neex la ndax nag boo jëlee góol ba nga xam ne moo jóge ca Milan AC dem ca Paris Saint-Germain di góolub Italie ñu koy wax Donnarumma nga jël ko def ko meilleur gardien def ko numéro un ci Europe wala ci àddina bi jamono ji ñu toll jël Edouard Mendy def ko deuxième yaakaar naa ne bu keroogee wata nga taxas wet wala nga def mbirum racisme te itam ñooyu defe naa ne nag nekkul li nekk li war a am ndax nag Edouard Mendy moo wane boppam ba àddina bi yëpp nangul koog manam defe naa waa Chelsea duñ ko weddi te itam nag monde bi duñ ko weddi rawatina la mu def Ligue des champions Clean si ak yu mel ni kii noonu defe naa kon daal ñoom def nañ la ñu bëgg a def dana Donnarumma numéro un waaye man tey ci jamono diiru ne wàllum góol ku koy def daamaa jàpp man Babacar ne Edouard Mendy mooy sa numéro un. mi ngi noonu Babacar euh, di kan nañ ci plateau bi tey daal euh, suñu làmb dañoo xëyee ko nga xamante ne mooy Forza. Mhm. ginnaaw euh, victoire boobu lee nga xamante ne amoon na ko si kaw mbër boobu di. Pakala mhm. nee na je veux Lac de Guiers 2. de mooy dama bëgg. wala moom laa bëgg Lac de Guiers 2. instant bii daal Lac la bëgg engagé. ah waaw làmb day noonu la. Mhm. parce que Forza dañ koy féliciter encore une fois ci ndam boobu. di encourager la bi mu doon bëreel parce que ñoom ñaar làmb noonu la dañu bëre ñaari yoon. Mhm. Mm, revanche am Forza fayu loolu mooy làmb. Mhm. Euh, euh, bii nag wax dëgg yàlla gaawaay ba dafay gaaw trop làmb ja parce que ay seconde lañ bëre jël la am mais bon bi mu ci jógee nag ah dalal nañ ko waxtaan na ak journaliste yi wax na li mu bëgg ah. moom Lac de Guiers 2 la teg. bëtam nee na moom la bëgg a bëreel ci biir wax ji sax su ma jumul wax na ne moom du sax moom moo ko bëgg waaye ay supporters ma ko bëgg boo da ngay tegaat da ngay te itam mbër bi mu daan du mbër mu ndaw pakala la daan mhm. pakala bëriwul defet ci lit avec frappe yaa ngi dégg te du mbër a daan mhm. kon su ko daanee ak manière bi mu ko daanee ci ay seconde ah ne pa ne fa Lac de Guiers 2 la bëgg a jël waaye loolu ci suñu kanam la Lac de Guiers 2 nag actuellement bëri na mbër yu koy dëkk ci làmb ji. Hmm. waaw mbër mu daan Fra bi mu daanee nee na Lac de Guiers 2 Forza nee na Lac de Guiers 2. Hmm. keneen ak keneen nee na Lac de loolu nag mooy làmba loolu mooy làmb parce que ñoom ñooñu ci kaw ay Lac de Guiers 2 ay Modou Lô ay Balla Gaye ay Eumeu Sène. dëgg la ñoom ñooñu ñoom il fa que ñii di leen. dëkk parce que ñoo leen mën a jox loxo ñu fekk leen ci kaw pour foofu mën a neex yëngu comme mhm. tey li tafaatin war a seq ak Boy Niang li Balla Gaye de war a seq ak Boy Niang li Modou Lo war a seq ak Ama Baldé mhm. ñoom dañ ci bokk ay ñoom Sa Thiès ay Yékini Junior ay Garga Mbossé mbër yu yëpp dañu war a dem fekk ji ñële ku ci def ay preuve te Forza mu ngi ci ñaari victoire yu teglantoo mhm. ginnaaw Abdou Diouf daf ci tegaat tey ki nga xam ne mooy la kon defe naa ne ah dañuy xool nag ban promoteur mooy doxi boobu komba waaye daal xam naa ku ko tëgg di nga am combat bu neex ku tëgg di nga am combat bu neex ñoom ñaar nag ay mbër lañ yoo xam ne yu mati mbër lañu macha la ci taxawaay waaye tamit am nañ doole te sëri nañ ci entraînement lay dëgg di nag damay waxaat encore une fois dama koy faral di wax euh, ku jafee daan la ci làmb Lac de Guiers mbër mu jafe daan la parce que il est sérieux lu muy def li muy def da ko teg fu leer la koy teg Lac de Guiers du bëri si erreur waaw loolu moom am na. Euh, mais qui dit Forza il pèse à peu près combien parce que ci photo bi may gis nii met en avant loolu nga xamante ne mooy euh, grandeur am tu vois grandeur am ak loolu nga xamante ne mooy poids am ça se voit qu'il est en forme. bien sûr. Mm. plus de 100 kilos ah parce que te moom boo ko xoolee da nga xam ne romb na cent kilo di dem mm, da nga koy xool ci ay cent vingt kilos côté yooyu fa foofu boo ko doon posité ci poids côté nga koy yóbbu mm. yaa ngi dégg donc juumul euh, ci non non non bien sûr non non non juumul ku ko tëg bu ko Lac de Guiers nangu woon lu mm-hmm. neex lay doon mais nag problème bi mooy des fois combat di nga ko bëgg mais taxawaay bi tey bu bu bu Lac de Guiers combat bii nii pour mu taxaw sa ak euh, Lac de Guiers mm-hmm. euh, de Forza Lac moo koy gaawal parce que Lac de Guiers de waaw moom moom tey bu noonu waaw rek moo moo am yaa ngi dégg parce que moom moom moo Forza moo am tey mm-hmm. avantage bu ak Lac de Guiers 2 mais Lac su ko neexee mu taxaw ne du ma jël Forza mm-hmm. Gris Bordeaux laa war a bëreel wala ndangam waaye nag lamb dama ne garab la ci kaw lay fekkante waaw mi ngi noonu très rapidement ñu daal jàll ci kooku nga xamante ne mooy Alioune Seyde. Mm-hmm. nee na le rêve fou d'Alioune Seyde. accrocher euh, accrocher le titre de roi. l'offrir à mes supporters. Mhm. dañ daan tubaab de day ne nekk euh, c'est pas interdit de rêver le malheur c'est de ne pas réaliser ses rêves daa ni kii di Alioune Seye son rêve actuellement c'est de d'accrocher loolu nga xamante ne mooy titre le roi des arènes. maanaam ça veut que mu ngi gént pour pour nekk roi des arènes. waaw am na si droit ah. rêve nag comme li nga wax rek comme noonu ko tubaab bi waxee ah la cay metti mooy nga gént ko ba pare te réaliser wu ko waaye mhm. boo ko réaliser moom ak cant la la loo nag mhm. mooy nga di ngay maanaam la mu laaj nga di ko ko jox Alioune Seye 2 nag defe naa ne tey làmb mm, dafa am loo xam ne ci làmb retardement bu mu ci am mhm. moo tax sax tey waaye defe naa ne génération ñu Modou Lo la mhm. génération lañ te wax dëgg yàlla doone mbër dàq na koo bëre ku mën a bëre la moom Alioune Seye numéro 2 mm-hmm. mais nag yàlla mooy dogal ah mm-hmm. mais itam gis nañ ne ah demoon na ba benn moment sax xamun na mun demee waaye gis nga ni mu dikkaate tey mm-hmm. dikkaat na teglante ñaari victoire yu am solo daan ay mbër yu mag ndax Issa Pouye ak Zos la daan waaw retour yu am doole kon tey defe naa ne te itam Alioune Seye 2 bi ñu gis du sumee ko si làmb nga ne du entraîné te jamono ji ñu ko gisee nii nii il est sérieux il est dafa gën a sérieux ci muy def ndax moom te itam mbër bu dal la bu am yar mais itam ci biir géew technicité am ak bëreem Sénégal yëpp xam nañ ko kuy amateuru làmb xam nga wala ngay technicien wu làmb xeexam tamit wane na ko ci combat yi mujjee mm-hmm. kon ça veut dire que tey li muy rêvé am na droit rêvé ko mm-hmm. loolu nag xam na li ko koy may te mu ngi ci mm-hmm. nañ yónni yàgg ba xam fan lay mujjee waaw parce que làmb jaa ngi kanam mi ngi noonu. Mhm. Euh, su ko jigee yal na ko ko yàlla may. may ko mhm. et euh, képp koo xamante ne aussi lutteur nga. waaw waaw te mu jig la <laughs> mi ngi noonu ñun noonu lañ mën a. <laughs> waaw bien sûr waaw parce que waaw <laughs> c'est ça mhm. doy na waar. Mm, arène nationale saccage des sièges. Mm, Djily Wade condamne fermement et des solutions. waaw parce que sièges yooyu ñuy dox di damm ak di ko yàq ci arène bi. Mm. du lu rafet du image bu nice. dëgg parce que làmb dañoo weex donc maanaam bu ñu defee benn bu ndaw. ñu ngandal ko ba mu nganda lu bon nag kenn du ko wujjee diw def ne dama koy def parce que li tax ma wax loolu mooy tey politiciens yi des fois buñ jógee li ci am ci ay violence wala nañ ma jéggal la damay parce que loolu lu Sénégalais yi teg seen bët bët la nawetaan bi da ciy am ay violence yu doy waar mais bu làmb moom bu defee benn ñu yaatal ko kon waa làmb li laa warasul du ñu jéema fexee rafetal soow mi duggee ko marché supporters yi def li nañu xam ne li ñu def du yëfu nit lii yëfu mala mm-hmm. foo xam ne arène boo xam ne dañ ko liggéey ay milliards nga am ko mm-hmm. bi ñu daan dem Demba Diop supporter xam nga fu ñu daan toog mm-hmm. ci dër nga daan toog stade Demba Diop foo baaye ne boo fa bëggee toog da ngay fay lu seer mm. ci dër bi nga doon toog mm. ba ci Léopold Sédar Senghor bi ci dër nga doon toog fi nga xam ne moo am ay seize maanaam booy da ngay fay billet bu seer so nga mm, fay dix mille VIP ay vingt cinq mille fa toog a seetaan fooy toog ci dër léegi da war yor 2000 dugg arène national toog ci 16. Mm. yàgg ka toog VIP yéen a yem même 16 bu ngeen toog. kon yow naka nga war a mën a retourner en fin di damm sais boobu. Mm. parce que da ngay gis loo xam ne pour ma du len du ramatulaay du reewande rek. sa mbër daan nga damm 16 ñu daan sa mbër nga damm 16 yow loo bëgg. léegi da nga bëgg kon ñu ñu ñu yooyu taxul ñu jox ko. déedéet da nga bëgg kon ñu dindi 16 yi ñu bàyyi leen ngeen toog ci dër bi. wallaay mel ni ñun dañoo mérito daal toog ci ay dër. wallaay mais pourquoi tey indil nañ ñu boo xam ne ay milliards lañ ko joob lañ ko liggéeyee li laay war a suuli nañ bàyyi li ñuy def ji li wàdd père ji li ñu koy nuyu di ko jaar li mu wax nii am na solo te defe naa waa làmb yépp a ko wax Sénégal yépp a ko wax mm-hmm. siis yi ñuy damm ko bàyyi loolu du xalaat du yëfu nit mm-hmm. ku koy def gis nga jëf dafa am jëf yoo xam ne mm-hmm. pour man jëf yi mala la jëf yi mala la te Serigne Cheikh Tidiane si almaktum yàlla na yàlla yokk leen taaf ñu si barkeem doon na wax ne nit ki bu fekkente ne yow nit nga ah? te mënoo jëfoo jëfi nit mhm. te mënoo doon malayka mhm. kon leneen loo def jëfi mala lay mala ngay doon kon te doon mala nag yàlla nañ ci yàlla musal mhm. nit da ngay nite fesses yi ñuy damm ci arène bi nan ko bàyyi te jéem a nekk ay nit du nu ay malayka te du nu ay mala ay nit la nu yàlla def nañu jéem a nite waaw euh, Babacar li nga wax c'est intéressant nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon ñu ngi ñaan ñooñu nga xamante ñooy euh, Euh, ñi di dem foofu ca arène ba seetaan euh, lamb ji mhm. nañ bàyyi bàyyi xel bu baax a baax ci loolu noonu nga xamante ne loo xamante ne ñoo ko moom c'est mhm. pour nous c'est fait pour nous donc loolu suñ ko sàmmul suñ ko defarut waruñoo nekk ñooñ nga xamante ne ñoo koy yàq dëgg la waay ci bàyyi xel bu baax a baax mhm. su ko defee ñu daal di dem nga xamante ne mooy géejawaay loolu lion du géejawaay euh, borom Casamance kooku di Balla Gaye 2 daal annoncé na retour am Euh, d'ici lundi prochain. waaw parce que boo xoolee depuis deux mois mu ngi Paris. Mhm. INSEPS di préparé wu. Mhm. ngir gombam ak bombardier parce que ñu ngi war a bëri le premier janvier. Mhm. Hmm, yaakaar naa ne kon man nga ne surtout mooy un mois. li ci des bareetul. Ah, ah, xam naa nag day moo tax muy bëgg a ñibbisi nag pour fan yi des weer wi des. mu def ko Sénégal contact parce que tamit boobu euh, maanaam fee bu fa préparé physiquement ba pare. dafa war a ñëw fii nag. Mm-hmm. dem école ba nag contact nag mm-hmm. yée yaram ci bëre ba yaram yeew ngir waajal mm-hmm. defe naa actuellement kon heure ba moo jot ngir moo war a ñëwaat Sénégal moom Balla ñu koy ñaanal mu ñibbiseeg jàmm parce que Bombardier am nañ ay xibaar que ni moom dugg si ne ci dëkk bi mhm. ci ndànk moom daa suufu daa def yëfu ndew ruudu quoi ci li li ñu am comme information ñoom ñaar nag fi nekk nii comme lamb la joo xam ne revanche la tamit ndax Bombardier daanoon mm. ñu war a revanche lamb ju ju ju nara metti lay doon Balla ak ah. Bombardier non du du yomb loolu du mm. ci sore ñu daal mm. jàll ci kooku nga xamante ne mooy Jamaïcain mm-hmm. Jamaïcain Fass Ndakaaru euh, Lansar en gestation. waa parce que boo xoolee defe naa jamaïcain comme li may wax rek. xale la mhm. mais ci làmb tey mu ngi ci wane loo xam ne lu ñëpp war a bàyyi xel la xale la boo xam ne macha allah euh, dafa mbappat làmb da ko rampe daf ko mhm. apprentissage bi da ko def ba mhm. tey mu nekk promoteur kon xam na li muy boole xam na li neex am na tamit encadrement bu muy liggéey ñu ci nuyu ku mel ni mor bu parcelle ñoom paate Gambia yaa ngi dégg parce que stafu am na ba Gambia man mii sax mën maa ngi ci biir ñoom Lamine ñëpp a ngi Lamine Seck parce que loolu lépp moom euh, xëy na yàgg nañu ak moom ba tax na tey yëpp mu man di mhm. koy xalaat. di ko wala buñ ko xalaatee lu ko mu def ko defe naa ne Quench ak lagos mhm. ku ko tëgg di nga am combat bu neex. waaw ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ko réussir. amiin incha allah ñu ngi koy xaar aussi avec mhm. impatience. ñu daal di jàll ci ko nga xamante ne mooy manager Dama Balde. Euh, Abou Abdou Bakhoum. Abdou c'est Abdou non. Mmh, mmh. nee na mon lutteur s'entraîne pour le 25 décembre. waaw nee na moom parce que boo déggee loolu parce que combat Ama ak Modou Lo dañ ne woon le 25 décembre lañ koy bëree ba dem au niveau du CNG. dëgg la léegi nag au dernier moment ñu demaat que ni mois de mars lañ koy yóbbu. yaa ngi dégg. Mmh. Euh, pour mois de mars ah ñoom nag d'accord ci loolu staffu Ama ci ni ma déggee wax ji c'est-à-dire que ñoom li ñuy préparer mooy le 25 décembre. kon ñoom bu le 25 décembre passé ah, boo sàgganee kon dootuñ bëre combat bi. ci li ma déggee wax ji. mais loolu nag li ma si wax mooy nañ waxtaan. léegi lu waraloon repousser boobu noonu. parce que xay na loolu tamit am na ci loo xam ne promoteur bi la. mën naa ne parce que li euh, ba mu taxawalee combat bi yàgg na. Mhm. te bu doonu kon jafe-jafe yi mu amoon ak yoon kon ba te xanaa naa ne tëgg na làmb ji mm-hmm. mais nag amoon na ay jafe-jafe ak yoon mm-hmm. coronavirus bi dugg na yooyu yëpp bokk na ci li ko handicapé mm-hmm. yaa ngi dégg bon moo tax ba nga xam ne xëy na yooyu mu war a repousser yi ah bi ñu jàppee le 25 décembre nag li tax ñu poussaat ko loolu tamit moom xëy na promoteur bi moo ci mën a indi ay leeral waaw euh, mais euh, nekk na làmb joo xam ne daal vraiment sénégalais bëgg nañ ko mais bon nañ ci nañ si waxtaan rek. nañ waxtaan ba déggoo je pense que la solution. bien sûr que waxtaan fu mu am rek jubóo dina am. certainement loolu am na. mi ngi noonu Babacar euh, mm-hmm. loolu lañ indiloon suñu mbokk internet yi. Ah. Uh-huh, uh-huh. ma bàyyi la nga nga tàggatoo ak ñoom wala nga waxtaan ak ñoom sax. dama leen di dama leen dama leen di dama leen di ziar rek ñaanal leen jàmm comme ni ma ubbee rek. Mm-hmm. Euh, di leen remercier ñoom ñëpp a ah. mm-hmm. du ma leen fàtte fu ci waay mën a nekk rek. ah mm-hmm. maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ah euh, di nuyu ñoom euh, ki nga xam ne nii moom moo di Aliou Sène depuis Allemagne Mm-hmm. ah mm-hmm. Euh, euh, ak xariros euh, Ndiaye Allemagne ñoom ñëpp maa leen di béggee Ndonga Fall Italie ah mm-hmm. Fallu ñaa Maroc ñoom ñëpp maa leen suñu Fallu Sène Brésil di sama mbokk di sama dëkk nuñu bokk dëkk Bawal ci ak yaay maa koy ziar depuis Brésil moom ñoom Ibrahima Ngom Ousmane Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi foofu doomu ak yaay yi nekk à l'étranger maa leen di ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu bépp sénégalais bu nekk à l'étranger diaspora bi du leen fàtte di nuyu tamit sénégalais yi nekk fii rawatina Abdou Sakho ñoom Mor Diouf ak ñoom Seex Lambaay nga xam ne li ma sol nii moom ma ko jox ñoom Jib Seen ah ñoom Babacar bu Modou Lama tout képp kuy jaayee Petersen rek wala nga fay liggéey sax maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di nuyu marché yi na Sénégal yépp ti leen ñoom Abdou Diouf bu ma leen fàtte bàyyi laat bu armée di jaaykatu or nekk fa nga xam ne moom moo di ca marché ti leen di suma rakk di xale bu am yar moom tamit maa ngi koy bégge bu baax a di remercier Mansour mi nekkoon si cadrage bi xam nga moom ndeysaan euh, di ko nuyu di nuyu waa axlu laayeen yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu xalifa bi di ñaan yàlla mu yàgg fi xalifa laayeen bi di nuyu képp koo xam ne daal sénégalais nga di wax que ni réew mi nu nekk mhm. Sénégal mhm. jàmm rek moo fi xaj yal yàlla suuxat jàmm ji. amiin yaa rabbi benn lañ benn lañ. Hmm. benn Sénégal benn lañ macha allah kon Babacar euh, kontaan nañ si yow di kontaan suñu mbo si suñu mbokk internet yi en plus. Hmm. sans pour autant oublier Mansour ko hmm. nga xamante ne moo ci ginnaaw suñu caméraman yu baax yi macha allah. su ko defee on vous donne rendez-vous euh, tout à l'heure si Senka. avec Babacar. macha <laughs>